Euh, Pape Doudou euh, fu ñu jëm ni Diourbel ci quatorzième édition cant cant Serigne Mahfous Mbacke yi euh, di euh, njukkal Cheikhul Khadim ak euh, njabootam Alioune Fall mooy chargé de communication bi ñu ngi lee gërëm Alioune Fall kontaan ci sa teewaay ñu ngi jëm nag samedi 3 mai le 3 mai ba samedi 5 mai 2018 ca quartier HLM Grand Diourbel programme bi ñu ngi toll ci quatorzième édition bi ndax mën nga ci ñëwaat léegi. Euh, jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Fall. Euh, di nuyu ñi nga bokkal plateau. Mm-hmm. ginnaaw ba maa ngi nuyu sëñ bi. Mm-hmm. Euh, di sant yàlla. Mm-hmm. waa ñu dégg ñu ngi dégg. di sant yàlla. di ko wàññi rek di wax ni ñoo ngi ci quatorzième édition sant Serigne Touba. biñ ko commencé léegi man na quatorze ans. ba ca sëñ bi ba mu koy door wéetoon na ci lool daanaka ci biirum néeg lañ ko def ak ñetti nit ak trois mille francs ba tey jii ñu toll si budget 30 millions. macha allah waaw. gëm rek mu yaatu. ku ne xam na Serigne Bamba moom. Mhm. la tànnee moo lay waajal. Mhm. ba nga waaj xaaral la macha allah. donc programme bi euh, incha allah euh, dina euh, tàmbali jeudi 3 mai. Mhm. jëm samedi 5 mai ndax mën nañu ñëw ci détails yi. waaw bala ñuy dugg ci détail bi aussi bëggoon naa xamal euh, waa Sénégal kay mooy sëñ Mahfous parce que sëñ Mahfous Mbacké aussi ku jar xam la mhm. parce que nekk na koo xam ni tànneef la mhm. ndax moo ngi nekk takkandeeru ku ñuy wax sëñ Modou Makhtar Mbacké mhm. ibnu sëñ Cheikh Awa Balla ibnu borom daaru ci waaru bi waram bu jigéen également nekk soxna Fatou Dieng euh, di sëtu Elimanel Fall ancien chef de canton nekk également sëtu Damel donc mu nekk euh, tànneef xam nga loolu dafa am solo parce que loolu moo tax sëñ Mahfouz teel a xam li nga xam ne moo ko war. nekk koo xam ne aussi tarbiyu na jàng na alxuraan jàng xasida jàng école française dem na ba première lycée Blaise Diagne waaw donc euh, c'est également koo xam ni jàng na français. Mhm. Euh, jàng finance islamique. Mhm. donc mais loolu terewu ko mu xam cëram teel Euh, ne mission day nekk ni day dem Grand Diourbel mu nekk benn quartier boo xam ni ci Diourbel. Mhm. Euh, mbirum sëñ Touba dafa xaw a lottoon. Mhm. mu fekk fa ay xale yu mel ni man mel ni ñeneen ne da leen di defar. Mhm. donc loolu mooy mission. sëñ Modou Mahfous ci Diourbel. ndaxte Diourbel sëriñ Touba dafa def fukki at ak juróom. donc mu nekk loo xam ne def ko sax tuuba Diourbel lañ ko jëlee yóbbu ko Touba wante nag sëñ bi nekk tànk tax ni. xam na ni xale yi am na loo xam ne war na ci def parce que sëñ Touba dafa waxoon lu am solo. Mhm. sëñ Saliou moo ko waxoon sax ne jox leen ma xale yi ma def li sëñ bi doon def ci mag ñi. Mhm. sëñ Mahfous loolu la comprendre. moo tax mu jël ñu. bëgg a loolu également def ko ci ñun loolu moo tax ñu ko wooye l' éducateur des esprits ah, saints di tàggat di ndaw ñi soo demee Diourbel dafa def ni maamam missionnaire la waaw mu daaw balla laak Cheikh Awa Balla waaw ñoom ñaar cerno laajteel ah, l' éducateur des esprits saints macha allah waaw kooku mooy sëñ Mahfous mhm. donc philosophie également comme ni ma ko waxee euh, dafa wax ni philosophie mooy le mouridisme mhm. parce que fii ñu toll ci crise des valeurs mhm. ñoo ngi gis ni système yi ñu fiy indi yëpp échoué na que ce soit le capitalisme que ce soit le socialisme moom il a dit ma doctrine ma philosophie c'est le mouridisme pourquoi le mouridisme parce que mouridisme dina yar dina defal jukko yi dina liggéey surtout liggéey parce que Serigne Touba dafa fonk liggéey ak jaamu yàlla mhm. donc Thierno également mi nga xam ne mooy maamam ci loolu la nekk musta julli ci jàppul. donc sëñ Mahfouz ci loolu te yenn saa yi sax ni Serigne Bamba dafa fan woon Thierno. waaw parce que li li war a loolu dafa dafa sori Pape Cheikh parce que Thierno euh, bi mu nekkee ci. soxna Fatou Issa Dieye waajuramu jigéen ma mhm. euh, Mamor Anta Sali dafa waxoon sëñ Touba mhm. ne ko kii de mhm. di waa ji ñëw gane àdduna su nekkee jigéen du baax ci yow su nekkee góor nag di nga yilif àdduna loolu avant sëñ bi di gagné àdduna la maam Mor Anta Sali waxoon loolu maam Thierno. waxoon sëñ Touba. Mhm. moo tax bi maam Thierno gane bi dafa daw dugg ci néeg bi rek daal di koy loo xam ni ànd boo xam ni. wax dëgg yàlla na sëñ Touba sax na si nee na lépp lu nekk ci Thierno maa ko ci def. Mhm. lu nekk ci Thierno moo ko ci def. ak maam Cheikh Hamda waaw macha allah macha allah donc mhm. di maamu ah. di pa euh, di sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Modou Awa Balla. comme un hasard dañuy màggal daaru ba noppi le 2. le 2 le 3. programme mu sëñ Mahfouz bi doog a tàmbali dem programme sëñ donc le 3 programme bi euh, dañuy def d' abord moom dafa nekk koo xam ni. Mhm. également c' est un donc mu nekk un homme multidimensionnel. dafay njëkk a def li ñuy wax consultation gratuite ak don de sang. macha allah waaw parce que moom c'est un acteur de mm-hmm. su ñu jógee ci loolu ñu def le soir. Mm-hmm. ngontu borom daaru. Mm-hmm. delloo njukkal maamam. la nuit ñu def ngontu maam Cheikh Ibra Fall parce que ku wax les fondements du mouridisme di nga wax maam Cheikh Ibra Fall di nga wax borom daaru. donc su loolu weesoo. Euh, journée bi ci topp di vendredi. ñu programmé incha ba pare. ñu jàng xasida suñu jàngee xasida ba pare euh, donc ñu def lu ñuy wax euh, marché pacifique parce que niñ ko xamee sëñ Mahfouz également dafa am une armée sans armes donc ay xale yoo xam ne dañu ànd ak moom civilu di toilettu sol ay tenues yu rafet donc di màcc di yor drapeau de la paix. Mhm. drapeau bu weex. Mhm. di sant borom tubaa di mhm. sant borom daaw. ñoon la ñu woowee une armée sans sans arme. macha donc ñoom ñooy def flambeau. donc genre yëgal daal. waa Diourbel population Sénégal que suba la yëf yi. incha donc loolu mooy euh, li nga xam ni. mooy am ci ajjuma bi. donc suñ ci jógee samedi bi. suñu xëyee niñ ko xamee. Euh, def na acte de citoyenneté. jàng nañu def nañ. Euh, flambeau. li ci topp nag mooy jàng alxuraan. macha allah parce alxuraan moo jiitu lépp. Mm. suñu jàngee alxuraan durus xasida daal di nag commencé def ziar. ñu mhm. def ziar yi suñ defee ziar def bernel ku wax mhm. yoonu murit wax bernel. Mhm. donc ren moom nag yi budget 30 millions Pape Cheikh invité nañu. incha allah donc invité allah su loolu loolu également. Ah, mm. ñu dem dans la cérémonie officielle. donc woo nañ autorité yëpp. à commencer par euh, le préfet de Diourbel. d'ailleurs def nañ CDD. ci ci ci événement le gouverneur fa nekkal. woo également les autorités la municipalité Diourbel woo nañ ñëpp. waaw woo nañ daal. Euh, également li ma doon fàttali aussi ci cant gi. Mhm. ñoo ngi koy def ci ndigalu. Mhm. sëñ Mountakha Bachir. Mhm. xalif général des Mourides. ak xalif Daaru Musi di sëñ Abbas Mbacke. ak njabootu sëñ Modou Awa Balla yëpp ak sëñ Cheikh Awa Balla. mu goog jërëjëf Fall euh, bu ñu amoon jot sax dinañu gën a continuer waxtaan week yow waaye li am solo euh, mooy li nga wax léegi jëm ci programme yi dina tàmbali donc le 3 mai ca Grand Diourbel ci ndigalu sunu sang boobule di sëriñ Mahfous yàlla na fi yàgg te wér mm-hmm. ay cantuñ jagleel Cheikhul Khadim ak euh, njabootam euh, bu ñu màggalee daaw ba noppi le 2 mai le 3 ñun ñëpp ñu wutali Diourbel mm-hmm. euh, foofee nga xam ne ni mooy quartier bi di Grand Diourbel jërëjëf Fall ñu ngi lay